mbokk yi dale nag jàmm léene kaay xëye dañu koy doore ak réew mi quotidien bi ñëw ci seen xët bu njëkk ci tere giñ tere sachet plastique yi ñoom nag xamal nañu ni nguur gi daal dina nangu ni dafa lajj ci mbir mi waaye yéene bi dañu xamal ni juróomi minion ci ay sachet bés bu nekk mooy nekk ci alam gi jëwriñ gi ñu dénk wàll woowee daal dina diggée ni dina appliquer loi gi nga xamante ni moom la ñu teg ci boobu lépp wàll coowal pétrole gi fayagul ci réew mi quotidien ñu ñuy xamal ni Aliou Sall moom mu ngi wéy di joxoñ baaraam tuuma ay jegeñaale njiitu réew mi mi nee na nag ñoom ñoko bëgg na saxal kon mu melni pétrole bi dal dina xajalé bu baaxa baax ñi di apéristi wa tribune tamit di melni kuy félu réew mi quotidien di wax ci xët gu njëkk ci njeexital yi mëna tukké ci révision contrat pétrolier yi ci di docteur Ali Union di expert ci wàllub négociation commerciale internationale mom mo ci addu néna nak bënd gi ni ben xarma yalla amul Sénégal ak yooyu les compagnie te nak amna ay charte yu bëri yo xamanteni laaj na ngir dal ñu xolaat contrat pétrolier waa Walf Quotidien ñoom di wax ni Moustapha Diakhaté moom muy gën a ëpp taal gi ci scandale googu ñel pétrole beeg gaz bi yéenekaay gi di ñu xamal ni nag kii di Moustapha Diakhaté moom war na xoolaat tooginam ndax nag apériste yi ñu ngi ko teg gët Moustapha Diakhaté moomee nekkoon ministre directeur de cabinet bu njiitu réew mi yenn ci ay nit yu bokk ci APR ñu ngi koy joxoñ baaraam tuuma ni moom mooy ki nga xamante ni dafa lëkkaloo ak yeneen nit ngir daanal Macky Sall ak rakkam waaye nag ba tey ci yéenekaay bi ñu ñuy xamal ni lenn rek la ñu a teg ci ndodd Moustapha Diakhaté mooy ni dafa wax njiitu réew mi warul jox ay permi Franck Timis ñu wax ci beneen mbir ñel waa sapeur pompier yi ñoom nag avancement am na ci seen atub retraite moo tax nag fu mu toll ni ñoom dañoo ànd ak jaaxle ba day ci las affaire Petrotim Abdoulaye Mactar Diop moom dafa daal di setal Macky Sall ba mu set wecc ba pare tooyal Abdoulaye Wade ba mu tooy xepp ndax nee na nag luy njiig njaag moom maître Abdoulaye Wade moom le moom mooy njaag Vox ngi ciment geeg taxe portuaire yi coalition bi ëmb centrale syndicale yi fu toll ni dañoo taxaw temm ngir xeex ko CNTS UNSAS CSA CNTS FC UDTS naka noone ñoom ñoo ñee ñëpp dañoo dankaafu nguur gi ndax nag dañoo ñaawlu yooyu la dogal yi nga xam ni banque mondiale ak FMI ñoom ñoo ko dicté réewu senegal te loolee kenn rek ci am ay njëxital muy peuple sénégalais waa Vox Populi ñoom ñoo ñu koo xamal les économes daal ñëw ci ab pétition goo xam ni dana Sall waaye nag Moundiaye Cissé Babacar Ba ak Ndiaga Sylla ñoom ñooñee nanguwuñu xaatim boobu lépp pétition ci jamono yi nga xam ne Alioune Tine Seydi Gassama ak Assane Dioma Ndiaye ñoom ñooñee ñëpp daal dinañu ko xaatim li waral nag kii di Babacar Ba ak Ndiaga Sylla ki ñooñam si ñëwuñu ko bokk na ci ay kàddu yoo xam ne mu ngi ci pétition bi lu ci mel ni complot wala xalifa otage ñoom loolee moo leen déranger ci boobule pétition l'observateur ñoom dañoo xëyee borom ngir ñu bañ fi promouvoir loole di homosexualité ONG Oxfam mel ni kuy dellu gannaaw ndax nag procédure gu ñu tàmmali woon ngir dàq Eliman Kane daal dinañ ko dakkal waa Dakar Times moom li leen jaaxal mooy tekk tekkaaral gi amadu Ba nekkee booba léegi ñel boobu lépp coowal Oxfam ak mbiru borom ñaari tur yi waa Dakar Times di wax ni li gën a néew kay mooy moom moomee di amadu Ba ñu dénk affaire étrangère mu àddu ci mbir mi wala sax convoqué chef bi nga xam ni moo nekk ca bureau national bu ONG Oxfam fii ci Dakar boobu jamono libération ñoom di indi ay firnde ci ab banditisme fiscal boo xam ni ñoom ñooñu dañu ko tudd ci exploitation or ba ca Sabadola Sud Quotidien ñoom nag wax ci beneen mbir ñel résultat yi nga xam ne rek ab nëgëndiku la ci baccalauréat général 2019 premier tour bi jàll na waaye nag résultat yi du ñu ne bon na waaye it taxu koo baax dañu koy jeexalee tàggat yaram ak waa record ñoom nag dañuy ñëw ci Keita balde bi nga xamante ni nag moo nar a nekk saafara gi ci ndeyjoor gi ci jamono yi nga xam ne Crépin dafa am ay méttitu biir Alfred moom om ba ba tey dafay metti stade le quotidien du sport di wax ci axe central ñeel suñu jongante beeg benee Koulibaly ak kuyaate wala ak Sané waa yéenekaay bi ñoom ñoo koy laajte boobu jamono waa sunu lamb moom di laajte ndax pikin ragalul ñàkk ñaari choc gannaaw bi nga xamante ni Eumeu Sène dafa am as fasu ci komba gi mu nar a amal kanw booy Niang 2 itamit am ay jaaxle lée fi rusandi ci li yéene kaay xëyee jërë ngeen jëf si déglu bi